benn jigéen la bu doon défendre honneur am ak honneur u ba ñu rey ko ñu wàcc ko nag ca àll ba ni bu ko kenn yóbbu ci cimetière xajul ci cimetière ndax dignité ma ëpp loolu ñu bàyyi ko ci désert bi àdduna yépp di ko fa fekk moom ndaw sax te suul lañ ko ludul góor ga ñu rey ca wetam ñu suul ko ñoom ñaar ñu nekk fa kenn xamu ci sa turu morom tabarkal la pour wax la ni nit mën na bañ xamante nit ci tur te tabarkal la ñu bokk lépp xam nga ni ñoom ñaar ku ci ne honneur moo la boole sa morom ba ba tax na yéen ñi fi daje yépp looloo leen boole honneur rek ci turu yonent bi honneur ci turu ñi ñu yaakaar tabarkal la yal na yàlla yàggal loolu bi ci des mooy ni ko Serigne Saliou Mbacke daan defe defati na ko rek ndax yéene yot naa yóbbante ba ma ngi ca la mu bind tabarkal la tabarkal la tabarkal la yal na yàgg taranga bu rëy la ci nun te at mu jot mu def ko te du ko fàtte loolu lu am solo la dañu teel xaritoo nag maag moom ndax booba sax ñëwagul foofu ma nga woon ca àll ba yàlla xam na ko waaye rek gàmm gu ñëw mu def taranga bu tolloon gàmm gu ñëw mu def taranga bu tolloon gàmm gu ñëw mu def taranga bu tolloon jaarale ko ci seen loxo ngeen teg ko ci sama loxo tabarkal la kon nag di ko ñaaneel yàlla yàlla di yokk fatxoom di yokk leeram tabarkal la tabarkal la euh, bi ci des mooy doom bi Moustapha Saliou tabarkal la dafa am téere bu mu defoon ci at yële yónnee ma ko tabarkal la téere ba am njëriñ lool yi ñu doon waxtaane léegi sax am na lum mu ca def yu mel noonu la tabarkalla la farata piir la mu yónnee si ko ñu di ko seet di ko seetaat mu aju ci média yi la mu ca wax dafa aju ci média yi mais média yi nag li ci tubaab yi wax mënuñu ci génn mais ñoom ñoo nu ko indil léegi ñu bëgg ko ayibal wane nañ ci génn mënuñu ci génn moom kay nañ ko réorganiser rek teg ko ci principe yi nu xam mais mënuñu ci génn parce que ñoo ñu ci dugal ba noppi te dafa bari ñu ciy liggéey ñoom nag nee ñu média yi baaxatul dafay yàq nangam nangam euh, dañuy wax audiovisuel ba mujj mën a ki audiovisuel lu ne wax nañ ko mais lu tax nu bàyyi mukk lu tax ñu bàyyi waaye nag ñu ko amee nañ ko def la tabarkalla la yàlla defal leen ci barke ndax yonent bi moo moo wax ni bu leen dunde mbett bu leen dunde mbett suñu Babacar ni bu leen gàgganti kon mbedd léegi faf ñu indi la mbedd ci sa biir néeg ak ah, buñ ko réorganiser wala àdduna tukki loolu rek mooy li ci ne waaye kenn mënu ci génn ngi soow rek di soow rek am na ci ko xaru sax fële ca Pologne mission bu mu fa demoon mujj mu xaru ci affaire média média média média waaye moo ko defal boppam kenn sant ko ko ñoom daal ñoo ko fi indi ñun jàpp nañ ko ñu ne nañu bàyyi duñu bàyyi dañ koy réorganiser nag moo ci gën ndax mbedd mi moo dikk ci biir néeg yi léegi boo ubbee sa rajo dégg mbedd boo ubbee sa télévision dégg mbedd gis mbedd yaay xam nag dangay ngay defee du dëgg loolu mooy li ci nekk tabarkal la yal na yàlla leeral yëpp te yàlla taxawuñu ci tabarkal la loolu rek mooy li nga xam ni moo ci nekk hmm. Maodo waxoon rekk ni mujj jamono moom kenn amu ci lu ëpp yonent bi di julli ci moom faratal boo defee yàlla yombal lu ne yombal faj aajo yi ndax li mu wax yonent bi ni ko waxal nit ñi ñu bàyyi ma xel ci mujj nit ñi dañ ma bàyyi xel ci mujj waaye kii feebar mën naa ko wéral ki ñàkk mën naa ko may loolu boo ko xamee rek dootoo ñaaw njortu ci man waaw loolu mooy dëgg loolu boo ko xamee dootoo ñaaw njortu mukk ci borom bi waaye yonent bi dañ ko ni àdduna lu ci yées mu ne ñaaw njortu ci yàlla ak ñaaw njortu ci sa mbokk ñu ni ko lu ci gën mu ne rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci sa mbokk kon ñu jàpp ko noonu tubarkalla la eh, bi ci des nag mooy wéradi yi bari na sama sët bii ma janool daf ma wax ci làmmiñam ni ma fekk ni ma président Abdoulaye Wade dafa dem Yaman mais biñ ko génnee ci télévision bi dafa mel ni yonent bi yu baax yi mu wax ci yaman daal euh, xaw na doy waar ndax dafa mel na réew ma dafa làpp ma ne ko boobu daal awma ci tontu sama xel daal mu ne ma waaw dama ne woon naa la ko wax rekk pour pour yaman daal ñu teg ci ñetti fan xale bi ñëw ni ma am na chaîne bu ñu wax TV5 yónni na Frédéric Mitterrand fële ca yaman ma ne ah kooku occasion la nañu seet lu mu fa jëlee yàlla arte moom mu seet ko ma it ca muñ te ma seet ko ñu daje mu ni ma noo ko àttee ma ni ko ñaari kàddu daal laa fa dégg yoo xam ni mën nañ ci sukkandiku seet naka lañ ko àtte mooy anglais bu fa yàgg lool ñu ni ko loo yéene réew mi mu ni pétrole bañ fi am te pétrole léegi mooy richesse su àdduna mu ni pétrole bañ fi am rek laa leen yéene waxit bu am solo ci ko xam seetlu ndax yonent biir dafa ni di ngeen laaj suuf si mu di leen jox ngeen di ko fay di ngeen laaj suuf si mu di leen jox ngeen di ko foye di ngeen laaj suuf si mu di leen jox ngeen di ko foye ba dina am jamono ngeen laaj ko mu yuuxu ca kaw ne amatuma lu ma leen jox ma ni ko ca la waxi tubaab boobu dellu lu leen pétrole parce que xam na ne àdduna pétrole du résoudre problème alo ko wax waaw mu mel ni kon am na lu muy dundal ci biir suuf si bu ca loolu jotatul rek dal di lompoñ alo ko wax waaw bi ci des mooy dafa fekk koo xam ni amul kattan di tabax këram di tibb ci suuf si di tabax mu ni ko mais mënula wër ciment wala ban mu ni ko fii suuf si gën ba ci tabaxee kër du yàqu mukk ma xam ni yooyu ñaar dugg na ci lii yonent bi waxoon ni ñoom barke ngi ci ñoom parce que koo xam ni foo tibb mën nga ci tabax kër sa réew barke nga fa tabarkal la ma ni ko noonu daal laa ci gis-gisuma ci leneen parce que xale yëpp dañuy laajte rek laajte rek laajte rek laajte rek tabarkal la te laajte bi baax na ayu mu mel ni kon àdduna bi lii ci xew nii yëpp baax na waaye it bàyyi ci xel yóbbu bàyyi ci xel ndax li yonent bi waxoon yépp ni dana ñëw dana ñëw dana ñëw dingeen dem laaj suuf laaj suuf ba dootul am lu mu leen jox te itam rek ñàq gi ah yonent yàlla Daawud te yàlla Daawud dafay jël weñ di ci def gilet gilet pare loolu lañ ko mën tudde ah, yàlla gërëm ko ci waxit njabootam ni leen maa ko jàngal man yàlla maa jàngal daawud weñ ba mu sut ci ñépp maa ko jàngal it faslal xitaab mu boole ñaari ngëneel faslal xitaab mooy fawaasil yi ndax itam di wax te teey moo gën di wax mel ni robine bu ñu ubbi baaxul loolu la borom bi tawal yont yàlla daawut mu jàngal ko li ñuy tuddee fawasil yi ci moom la jëkkee te mooy li ngeen di wax ay virgule ki ay point ki ay point virgule yàlla yont yàlla daawut di lu ko jëkk a jàngal pour mu mën a wax wax bu teey bañ a mel ni rek robinet bu ñu ubbi te yàlla dogal bi muy gaañu doom yi mel ni jom boobu ñoom amuñu ko te bëgg di sant yàlla yàlla ne leen mukk man kenn du ma sant alhamdulilah rabbil alamin ñàkk lañ may sant kenn du ma sant alhamdulilah yéy si guro rek ne alhamdulilah kenn du ko sant mukk ñàkk rek lañ may sant acca acca acca acca ñu mel ni seen baay gis nga mu ñëw ci yont yàlla noox واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ndax yéen ci yàlla noox bant rek la ma ne sunu borom ni ko defaral ma gaal bu ma sowee nit ñi waaye bàyyi ma ma inspiré la plan bi boo ko dee exécuté nga bàyyi ma ma supervisé ko seetal loolu sunu borom cawarteem àgg na ba foofu wasnaayil fulka bi ayunina wa waxyina nga xam ni boog sant yàlla ci coono la nekk waaye nekkul ci làmmiñ rek alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin loolu nekku ci ñu di ci bàyyi xel te bañ a xeeb dara maa ngi am sama benn wëllëre dafa daan jooy rek ni dafa soxla capital bu am solo waaye gannaaw gi ma gis ko mu nekk ci yëf yu am solo ma ne ko lii lan la mu ne ma dama seet seet lu may def xaw ma ko ma yett lu lu mat cinq cent ci ay kurus jaay ko ci àdduna bi li ci ëpp makka laa ko jaayee mu ne ma daal xaalis ba ma ci kenn xamul na mu toll ci laa dëgg di liggéey ba léegi parce que boo bëggee liggéey rek am na foo mën a jaar ba liggéey kooku nag mooy li am solo tabarkalla ba tax na kon nag ñu bàyyi xel ni cant jëf lay doon cant jëf lay doon lay doon ñu teg ko noonu rek ci seen loxo ndax jamono bi moom ak nii Sénégal demee nga xam ni coow li ëpp rek kenn ku ne jéem a seet lu muy def te responsable yi ñu ñaanal leen yàlla ndax ñu mën a retrouver nit ñi itam ñaanal seen bopp waaye ñu mën a retrouver teg seen am farata la lu ama am solo tabarkalla tabarkalla ah ñu ngi mel ni guddeegul nag waaw guddeegul waaye tabarkalla dañ leen namoon lool wallaay ndeysaan leen namoon lool ndax dañuy faral di bàyyi nit ñi ñuy soow rek soow rek soow rek soow rek soow rek waaye bu jotee rek nu ñëw seet leen ci barke góor gu tedd gi te nit ñi ñuy soow rek di soow rek di soow rek tabarkal noonu rek la toll noonu rek la toll waaye guddeegul nag waaw mel ni kon woykat yi rek xëy na am nañu seen place waaye bu jëkk dañu daan dog kuy wax léegi nag kenn du dog kuy wax dangay bàyyi ba mu noppi nga wéy sa wéy tabarkal la ku mel ni kon nu toog tuuti rek ba ca kanam yi ñu leen wax yépp nag biñ ci mim yébi Maodo mel noonu yépp ngi fi ubbiwunu ko waaye mi ngi ci biir lenn rek lañ ci nekkoon ci suba di werante moom fi Maodo waxe ni philosophie Aristote kenn mënu ko dugal ci histoire sainte kenn rek ko mënoon mooy Alexandre le Grand الإسكندر الأول الأخ صالح تسنتتم بحمد أنكم وبقي جل فلسفي أيسر دول كوتي إسوار سنت كوي نمو مني نك نينكو سيتل بحم نخ فلسفي بوب دجنا الإسكندر الأول ولا بين الإسكندر لا دجل بنكو سيتل إسكندر الأول لا دجل ñu def ko ci histoire sainte sinon buñ ko ci def xam nga kooku yitte la yitte bu rëy la ci wàllam mu ne nañ ko ko seetal tabarkalla tabarkalla yooyu rek lay wax yu mel noonu ハハハハ 私たちは。